am nañu occasion yu bëri te ko aussi arbitrage bi dafa xawoon euh, ayuñu quoi ayuñu euh, nu ma ay ayuñu ay bal ñu ayuñu quoi ay bal une deux trois quatre cinq passe ñu teel heure yoo xam ni yow daa gis yow métti ak carton jaune yi rouge mais jaru ko woon si match bi match bi amul amul na jeu bu baax neexoon na mais arbitrage moo yàq faral benn équipe. attaquant moom c'est que nag football lépp mënut a dugg il faut ñu xam loolu quoi lépp mënut a dugg. defaat benn bit ñaar 3 xam nga 3 0 c'est bon si match daan équipe xam ngaa dee mais situation bii ba dugg day mat ay 20 30 mais 3 bu duggee rek gars yi daan équipe xam naa dee donc li par bay benn ñaar mën na fa am benn bit wala ñaar bit amoon na fi tey occasion yomboon na souvent en premier mi-temps équipe buy ndaare lañ jël Paul moo jël avant ndaare si championnat bi mais il faut il fallait que ñu ñëw ñun pressé leen gagné leen mais booy dañoo xaw a bàyyi tey euh, ils ont un peu naa dañoo xaw a xeeb Paul moo suñu problème deux ans yi moo suñu problème équipe bi ndaaree dañuy am problème ak moom non man man du ma tiit fool bi jarul tiit man je suis trop confiant man ni ligue entraînement dañuy ligue entraînement moo la ñu indi match fii on joue bien mais des fois yàlla mu ñëw comme tey on a des occasions manqué ko quoi l'avenir dina baax quoi. ça fait juróomi fan bañ jëlee équipe bi donc euh, dañu ñëwoon Thiès uniquement pour avoir un résultat positif résultat positif maanaam pour am un point wala yóbbu trois points pour ne pas perdre pour redonner waat groupe une ñu fekk confiance euh, surtout Lolo, surtout loolu pour redonner waat confiance groupe bi suñu xoolee championnat bi on est à la huitième journée rien n'est encore perdu on va corriger on va travailler et je crois que ni incha allah rabi suñ continuer liggéey bi ñu ligue bi yaakaar naa nañu dans l'avenir avenir euh, gis benn porte ci beneen ëtt position bi ci kaw. l' essentiel c' que euh, redonner confiance au groupe ba pare ah parce que ba ñu jouer ba gagner le gagné gul ba donc li ci gën a la première victoire bis bu ñëwee nga xam groupe bi nekkaat amaat confiance avoir l'envie de de de de travailler je crois que InshAllah, d'ici rabi quelques journées InshAllah, allah rabi dinañ gis équipe bu port bi xar kanam